pacte pour l'égalité des lan la pacte bi dañu jàpp ne que tey lu euh, sénégalais lu ñu war a def dañu war a yemale nit yi euh, su ñu waxee dëkk nation premier point bi moo di ñëpp war a yem loolu moom su fekkee ni dëkk boo xam ne loolu amul loolu mooy indi gàllankoor yu bëre. maanaam ngeen xool immigration clandestine maanaam xale yi jël gaal yi. Mhm. yaa xam ne que euh, par exemple ethniciste affaire u xeet. Mhm. yaa xam ne ne que affaire région yaa xam ne ne que par exemple dañuy dañuy tëkkal dañuy séparer ndaw yi ak mag yi góor yi ak jigéen yi ñoo xam ne dañuy def politique ak ñoo xam ne defuñu politique dëkk soo ko bëgg a yore nga nga bëgg ñëpp liggéey ñëpp gis seen bopp il faut faw nga yemale nit yi créer ministère pour l'égalité de chance donc ci gàttal daal loolu mooy ponk yoo xam ne nekk nañu ci pacte bi léegi ñu ngi koy jéglal candidat yi te ci campagne bi nii incha allah candidat boo xam ne à partir de samedi campagne bi su ubbee di nga mun ñëw ku bëgg a dina signer pacte bi su ñu ñëwee ba fin campagne bi nag dañuy defaat beneen point de gis ngeen fii affiche bi boo xam ne candidat bu signe dina ñëw signé ci ci affiche bi fin de campagne dinañ leen ne nag voilà candidat bi moom ponk yoo xam ne jàpp nañu ko lii Sénégal yi bëgg nañ ko te dina doxal Sénégal euh, dëkk bi kii signé na ko kii signé wul ñun nag société civile ñu jëluñu part mais dañuy informer nit yi pour que sénégalais 25 février su ñuy choisir ñu xam kii lii xalaat la. Mhm. kii defu ko loolu rek la ñuy def.